Euh, mbokk internet yi gannaaw bu ngi leen di nuyu rek ñu ngi leen ne tey ñu ngi fii si juma murit bu Ziguinchor amal li nga xamante rek moom mooy euh, Magal Touba ñi gën ko xam rek si tour 18 safar tey nag bu ñu képp ku tudd 18 safar sa xel day dem si euh, Touba tey nag fii si Ziguinchor ñi nga xamante rek mooy ay taalibe wala ay murit yi nga xamante rek ñoom ñoo nekk fii si diwaanu Ziguinchor ñoom dañ fi amal li nga xamante rek moom mooy Magal tuba bi nga xamante rek mooy léegi liggéey Xaadimu Rasul tey nag ñu ngi fii pour seeti suñu mbokk ñi nga xamante ne euh, ay euh, murit lañu rek pour ñi wax ñu lan mooy euh, magal Tuuba waaye tamit ñi wax ñu ñoom tamit liggéey bi nu mu demee si ñoom pour ñi mun a amal li nga xamante rek moom mooy magal boobu boobule pour ñi mun ci adu rek dañuy indi ki nga xamante ne moom mooy suñu papa ki nekk si li nga xamante rek moom mooy organisation bi pour lépp mun a antu fii si magal tuba wala magal 18 safar fii si Ziguinchor papa maa ngi lay nuyu Euh, sëñ bi fay nañ la. Euh, nga baaxee ñu tur bi. Euh, maa ngi tudd Manoumbe Seck secrétaire général de l'organisation chargé des relations ak institutions yi nga xam ne ñoo nekk ci biir région bi yëpp. voilà tey ngeen nekk fii si juma Murit pour amal li nga xamante rek moom mooy 18 safar mu nga ci addu. waaw mën nañ ci addu ndax du loo xam ne gan lañ ci 18 safar. la ko indi moo di liggéey bi nga xam ne nii ku tedd ki Xaadimu Rasuul liggéeyal na ko sunu borom ah, le ci 18 safar pour dem ci géej gi pour liggéey bis boobu ba muy dem la ne lépp loo xam ne am na ko ci yoonu murit bi muy dem ci la ko yàlla jox li mu am bis boobu nag mu xam ne ne maanaam bis boobu moom jëmmam ji lot na sant sunu borom kon di may digal jullit yëpp bis bi saa bu dikkatee nañ ma ci le yalla sama borom ciant gogul yi commencé ci nañ jangum alxuraan ak qasayid ak bernde ak bernde lu ci way man naka def bernde li commencé ci ginar ba ci gilem bu kenn xeb bu kenn yem ñaar ñi dend kiko fonk ak kiko fonkul Kiko fonk fum toll di gis lu mu tané kiko fonkul lolu mo waral at mu jot 18 safa sa bu at mu nekk day gën a kawe at mi nga xam ne moom lañu ñu weesu woon loolu mooy bis bi ñu di ko def ca Touba nun nag noo ngi koy defee fii ci Touba Ziguinchor fii ci jumaa yi murit a ah, suñu bokki jullit yëpp teew nañu ànd ak nun ci mbég moomu ànd ak nun ci cant gi ak njàngum alxuraan mi la ci topp it bu ñu jàngee alxuraan ba deux heures ci la ñuy jàng xarnu bi ñaanal jullit yi bu nu noppee nag commencé dugg ci bernde jëmale six heures kon loolu moo waral di safar dëkk bi daal ñëpp teew nañ yaa ko gis ñëpp ñëw nañu ci jumaa ji pour jàng alxuraan ji ak xasaayid yi Euh, ñi gis ne ren euh, amon nañu li nga xamante mom moy 18 safar ci li nga xamante ak mom moy mbass mi nga xamante mu ngi fi ci euh, Sénégal waaye tey Touba wala Serigne bi joxe na ndigal pour ñi amal li nga xamante mom moy 18 safar té mu wax ko nak tej ci ay mosi li nga xamante rek wa kër docteur joxe nañ ko pour képp ko xamante da ngay magali wala da ngay ci euh nga nga nga nga jël say matuwaay muy moo xam ne raxas loxo la xam euh, takk max la wala laalu laalu zel ndax yéen fii euh, noonu la fa demee. waaw loolu nga noonu ko waxee noonu la demee mbas mi am na naam waaye mbas mi nag comme ni ko xalifa waxee rek mooy li ci ne. mbindaafun la moo xam ne sunu borom moo ko sàkk yónni ko muy def liggéeyam jaam yàlla yi yàlla moo leen sàkk wàcc leen kaw suuf sant leen ñuy def seen liggéey kenn ku nekk nag na nga góorgóorlu ci la yàlla sant nat la bo xamne sun suñu borom moonu ko andil doomu aadama mun ci dara luru nu nun ñëpp nu bokk tuub delu ci yalla ndax la ci nek moy liko wara wax nit ñi modi ben febar bu joge daj adina bepp amul ben pey bu ko amul kon dañuy xamne li def def sun borom la te ba fii nu toog di wax yow kenn kula mën ne la am garab go xamne moy safaram wala ñek woo xamne suma la ko ñekkee dal amut kon yalla ci bopam mo indi mbass mi ci rew mi nañu xamne mbinda mbindaafun la comme nun kep ko xamne yalla boole na ci ak foo mën a nekk daana la ku ci bokk itam loo jege-jege ki ko am na la wóor ne du la dal lii mooy liñ ci mën a wax sa doom tey boo bindee sëqub leetar jox ko ne ko demal yóbbu ko koo adressé aw turam du ko joxub leetar mbas mi noon la demee képp koo xam ne yàlla boolewu la ci alaa kulli alin da nga ciy mucc gis na nañu nag mi ngi wàññi ko bu baax te li nu jàpp mooy day dem day dem day dem kon daal mën nañ jàpp ni matuwaay yëpp jël nañ ko rek pour aar euh, taalibe yi nga xamante ne dañuy ñëw siyaare si. waaw li nga xam ne nii moom la euh, ñi nga xam ne nii ñooy saytu loolu muy waa Kër Docteur mesures de barrière yi nga xam ne nii moom la ñu wax ne nañ ko def depuis corona bi amee ba léegi loolu leen sëñ bi digal fii ci jumaa yi murit loolu moo fiy dox muy bis boo xam ne nii bisu 18 safar bi la ak buru 18 safar ñu ngi respecté mesures de barrière yi. ajjuma soo dikkee nii ngay fekk nit ñi taxaw yor seen sel teg ndox mi fii takk ay maska ku yor masque boo dikkee dañ lay wax dellul jëli sa maska su fekkee ne masque yi fi nekk jeex na tey jii suba bi may xëy ale naa juróomi téeméeri maska joxe nañ ko ba jeex na takk fi ñu toll ah, ñu ngi séentuwaat yeneen yi war a ñëw. voilà papa ñu ngi lay jaajëfal rek. nga ñu ngi leen ñu ngi leen di gërëm te di leen sant man maa ngi tudd Manoumbe Seck ndax ñu ngi rafetlu seen taxawaay di ñaanit seen liggéey bi na bokk ci jëf ya nga xam ne ni sunu borom dana moom la nangu di leen ñaanal seen seen bi nga xam ne moom ngeen yor saa borom dimbali leen ba ngeen am ay télévision yoo xam ne day dañ monde bi te ñun ñëpp nu fekk ko. jërëjëf papa jërëjëf voilà kon mbokk yi rek si 18 safar la ñuy desandi bu léegi kon euh, gis nañ ni ay taalibe ñëw nañu fekkee li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ziare bi fii ci juma murit bu Ziguinchor ci loolu nag dañuy xool yi tamit taalibe boo xamante ne moom ñëw na ñëw na moom tamit fekkee mbir mi sëñ bi noo man maa ngi tudd Elimane Fall voilà Ilimane Fall gannaaw bi ma la nuyu rek euh, euh, gis naa ni yow da ñëw aussi fekkee li nga xamante rek moom mooy 18 safar fii si jumaay Mouride euh, lu waral sa tànk tey fii. waaw xanaa ñëw sant sëñ bi bisam bi rek parce que amul lu dul bis bi te moo ne bis bi daal ku ko fekkee daal loo ci mën daal na ko ci def xeebul yéemul daal moom daal looloo taxoon ndax ñu jéem a ñëw fii ren jéem a màggal si si jumaa ji daal. Touba lañ daan dem sax waaye ren moom comme yàlla dogalu ko. moo tax ñu ne nañ ñëw màggal fii daal si jumaa ji. Euh, comme ren euh, yàlla dogal ñëpp dem Touba. Mm. est-ce que euh, d'habitude fii yàgg nañ di fi amal li nga xamante ne moom mooy 18 safar wala mag dem bi moo waral. waaw non fii moom yàgg nañ fee am moom wax dëgg yàlla man moom guleet moom ren moom maa ngi doog a ñëw fii wax dëgg yàlla man Touba rek laa laa ko doon célébrer mais yàlla moom xam nga mooy li ma la wax rek comme dogalul ren moo tax ñu ne xaaral ñu ñëw jumaa murit que lu ñuy ut màggal bi daal sëñ bi nee na daal fu ko waay fu waay mën a ne war nga ko mën a def quoi parce que Touba ak fii lépp fépp benn la waaw bu yàlla dogalee nga dem Touba ah loolu la yàlla tudd bu yàlla dogalut ci tamit boo xëyee rek ñëw fi si jumaa ji dem ci barkeelu ci xasida yeeg euh, alquran yi comme nu ko sëñ bi diglee daal jërëjëf la mbokk yi rek comme ni nga ko ni nga ko defee rek si ñi nga xamante rek ñoom ñooy organiser li nga xamante ne moom mooy 18 safar fii si jumaay Mouride euh, defee ko tamit si ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy ay taalibe yi ñoom rek euh, siyaare ñoom tamit kon noonu lañ koy defee si ñi nga xamante rek ñoom ñooy indi seen ndimbal rek pour euh, gën rek jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si organisation surtout si wàllu moyen ñoo xam ndax xaalis la indi wala ay ay ay lekk la indi si organisation bi yaay boy ma ngi lay nuyu. ok ma ngi lay fey yaay booy noo tudd. Fatmata Gassama. tey fi indi li nga xamanteni rek mom moy ndimbal rek pour bokk si li nga xamanteni rek ñom ñoy wala euh, dimbal ñi nga xamanteni rek ñom ño fi nek organiser 18 safar fi ci jumaay Murit bu Ziguinchor euh, yaay boy lu waral loolu. waaw ah, loolu la da dama ko ñoo dimbale rek comme ma ñëw siaré sëriñ bi bu ñu mënoon dem Touba lu ñu mëna def fi tam ñun tam ñi def suñu euh, warga bi fi waaye pour ñëw ñaani suñu doom bi sëriñ mbi lu mu ñaani ñu lu ñu buggati suñu doom yàlla na yàlla ñu am ko. jërëjëf yaay boobu. Eh, jërëjëf. wala kon mbokk yi rekk noonu la ñuy xuusee xoolaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu mbokk baay fal yi leen yëngu si wàllu Café Touba bi euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax kay. Euh, noo tudd. man maa ngi tudd Cheikh. Cheikh Moussa. Cheikh Gueye. wala Cheikh Gueye yow yaa ngi fii si wàllu café tubaab li waral li waral tey nga jàpp waaw ñun dañu jóge ba Ndar lenn ñorunu lu dul sëriñ Touba parce sëriñ Serigne Touba lim nu defal dafa rëy te dañu gis lu bëre waaw juddu gis sunu mag yi yëpp di si dox waaw te gisuñu li su dul njëriñ rek nañ si gis kon dañuy topp seen ginnaaw ngir jëriñu. parce que Serigne Touba amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am mi ngi nuy jëmale si lu bëri di nu dimbali si lu bëri tamit di nu jàllale kon amul lu dul di nga jàpp daal bisa bii rek la am. jërëjëf waay. jaajëf waay. kon mbokk yi rek ba léegi ñu ngi fii juma Mouride bu Ziguinchor rek fekkee li nga xamante ne moom mooy 18 safar si 18 safar boobu nag xam ngeen ni lu bëri mu ngi ci mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si organisation bu lépp yemb mais ñi nga xamante ne tamit ñoom ñu yëngu si wàllu waañ bi pour li nga xamante ne moom mooy bernde yi ak ñi nga xamante ne tamit ñooy indi seen wàll ak ñi nga xamante ne ñooy defal li nga xamante rek moom mooy euh, café Touba jóge nañ nag si ñi nga xamante ne ñooy defaru café Touba bi ñu ngi fii si ñi nga xamante ne mooy suñu yaay nekk si ci waañ bi ànd ci nag ak ay góor yi xamante rek ñoom tamit jàpp nañ si mbir mi yaay booy gannaaw bu ma la nuyu rek dama lay laaj noo tudd. waaw maa ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant bés bi di màggal bés bi di leen sant yéen ngeen ñàkk yàgg ko fekke di ñaan ci bés bi yàlla ñi ko teewee ñëpp yàlla nañ ko yàgg a teewee. liñ koddu caam. man caam laa tudd di taalibe murit di ñaan yàlla nu fekkee ay bési bési bési bés. liñ mën rek liñ mënul lépp def nañ ko fi daaw def nañ ko fi ren. voilà yaay boo ñu gis ne rek euh, tey yéen a ngi yéen a fii si waañ bi rek. di defal li nga xamante ne tey nag ñoo ngi sonn ngir Serigne Touba ñoo ngi sonn yaakaar ne noo nga Touba te ñun ñëpp Touba lañ dëkk ndax tey jii bis bi moom ñëpp seen i xol nga Touba xanaa ñàkk a mën a bañ a dem waaye noo ngi Touba noo ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant ci suñ sëriñ bi noo ngi leen di ñaanal xéewal gun fi def ren yàlla am déwén gu ko raw yal na leen yàlla defal xéewal jërëjëf yàlla mbokk yi ba léegi rek ñu ngi fii fi nga xamante ni amal li nga xamante rek moom mooy euh, mberne yi kon rek ñu mën a xuus euh, rek si waxtaan bi rek xool ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si waañ bi jógee laaj nañ ci suñu bi nga xamante rek moo fi nekk moo fi taxaw jigéen mais gis nañ fii benn mbokk taalibe moo xamante ni tamit moom euh, mu ngi taxawaay taxawaay bi nga xamante rek moom mooy taalibe bu bu mot sek sëñ bi nootu man ndongali Gore Ndiaye lañ koy wax wala tey yéen a ngi fii si waañ bi rek di defal li nga xamante ne moom mooy euh, togg euh, lu waral tey seen taxawaay bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu nuyoo mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp di sant Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax mi nga xamante ne moo tax ñu teew fi tey te jëmmi Serigne Touba ji rek tax waaw ndax bisub tey bi euh, kat ku ne maanaam do yemut ci sax murit dong jullit yëpp koy màggal tey. ndax sun borom neena na maam dafa sakku woon ci sun borom mom cheikhul khadim ne ko sama bis bi bu ñewate na nek bis bo xamantene wa bar sax sax nañ xamne sama bis bi ñewna nañ ma ci santale yalla sun borom ndax bi nga xamantene tawuna li nga xamantene modi liggey bi la commencé won ne kat nan ma santale yalla ci li nga xamantene mom la wara jublo liggey kon bi ko khadim di sakku di dem fekk na mu koy ngir li nga xamantene mom la wara liggey te jam ñepp ñu war ko war ko jarño tay mo waral li nga xamantene sun borom dogal na mo dajale ñu fi tay di bisub magalu Touba di 18 safar di fukki fan ak juroom ñatt ci wéru mo nga xamantene modi di wolof ñu ko tuddé dajale ñu fi ci jumaay Touba di Touba tilen di Ziguinchor nu fas yéene fee liggéeyal Cheikhul Khadim te ñaan ci barke Cheikhul Khadim mu nangul nu liggéey bi bokk ci liggéey mi gën a nangu ci barke Seexul Xaddim waaw voilà kon sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal. ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla na suñu borom boole tawféex yi xewal yëpp barke Cheikhul Khadim. voilà mbokk yi rek lii lañ leen di indiwoon si li nga xamante ne rek moom mooy 18 safar fii si euh, Ziguinchor euh, fii nga xamante rek moom mooy euh, bésu Cheikhul Khadim Rasoul mooy at bu rek dañ koy amal comme ñu koy amalee fële xamante rek moom mooy euh, Touba képp ku mënul dem fële si Touba rek euh, da nga koy ñëw amale fii si euh, jumaay Mouride bu Ziguinchor waaye tamit li nga xamante rek moom mooy cas bi nga xamante rek moom moo handicapé mbir mi ñoom fii nag jël nañu matuwaay ba mu mot mooy mesure barrière bi nga xamante ne moom mooy yaa xam ndax takk max la wala raxas loxo wala geste sensation physique yooyu yëpp amal nañ ko ci biir jumaa ji waaye tamit raxas loxo balaa gëdu ak laal gel yëpp amal nañ ko fii fi nga xamante rek moom mooy duma juma Mouride bu Ziguinchor kon rek pour képp ko xamante ne mun nga seetaan nga xamante ne moom mooy euh, vidéo wala bépp information boo xamante ne mun nga ko am si euh, Casamance Actu rek euh, mun nga def bu fekkente ne si YouTube boobu mun nga jaar si Casamance Actu TV waaye tamit mun nga abonné wu euh, suñu seen YouTube boobu le rek euh, ba pare nga activer li nga xamante moom mooy euh, cloche de notification pour am bépp information wala jot bépp vidéo boo xamante ne rek dugal nañ ko suñu chaîne YouTube waaye am bépp information rek suñu site 3W point Casamance actu et point com tamit mun nga consulter suñu nga xamante ne moom mooy Google rek pour am bépp information si suñu article nga xamante ne rek dañ koy dugal si suñu site boobule jërëjëf.